ko ba léegi de. dara hmm. jógewul ci lef ci ci li tax dëkk bi jaxasoo. troisième mandat bi ba léegi kenn waxu ci lu leer. pour man hmm. euh, et dans l'ordre sax deuxième bi troisième mandat mooy li gën a cristalliser li li tax euh, nit yi di jóg. beneen bi mooy euh, bi ci mujj rek ci kaw Ousmane Sonko li ko jiitu woon mooy procès. li ko jiitu woon mooy ba mu Ziguinchor la ko jiitu woon mooy yu kenn xamul donc looy seet rek foofu nga koy gis léegi nag euh, problème bi ñu am vraiment c'est c'est c'est c'est très sérieux mm parce que dafay fekk si li ñu doon wax sànq ci euh, li dal ci suñu mbokk ñi nekk ci presse bi maanaam ku nekk ci opposition tey jii dafa mel ne yow da ngay a priori daal ah maanaam yow daal dañ lay xool bëtu koo xam ne dangay def lu ñaaw dangay wax lu ñaaw ak di la wutal ay ay ay ay ay loo xam ne dañ la koy sikkee ba di la ci yóbbu kaso waaw wala di la ci vidipande loolu mm. daal moo mooy nekk ci politique bi tey jii ci senegal ci wax ah tamit bala ñuy yegsi ci ñuy nekk ci mbedd mi di toj bala ñuy yegsi ci ñuy nekk ci mbedd mi di yàqal kiwu jàmbur ah, te may wax tamit ne Euh, ñaawlu naa li ñuy gën a wax yàqu-yàq yi plutôt ko ñi dee ñaawlu naa ko vraiment parce que lii dee dafa mel ni loolu dañ ko bëgg a suul mhm. di wax rek yàqu-yàqu yi kooku tamit ñu laalaat tamit suñu mbokk yi <laughs> voilà euh, di wax ne euh, li tax nit yi di jug ba seen xol tàng ba mu yegg nii ku foog ne benn organisation la buy jug woo nit def lii lool la non souvent day nekk loo xam ne day spontané maanaam day jékki-jékki rek jug comme ni ko président waxul loo xam ne xeeñul xaw ma lan baxul jékki-jékki rek ñor. mu ngo mais en réalité ñëpp a ngi déglu euh, li Sénégal li fi xew te man dama ne ñi ñi ñi jiitu ñi jiite dëkk bi dafa mel ne euh, dañu war a soxla xaw ma anthropologue xaw ma sociologue yu yu yu bokk ak koom-koom yu bokk ak justice yu bokk ak police parce que quand même dëkk dëkk da sentir nit ñi. ci lan lañu nekk ak lan lan moo leen di yëngal ak lan moo leen di bëggal defe naa côté bég bi xam nañ ci lu bari mm-hmm. football beeg ah ak ak fecc yeeg woy yi nga xam ne nee nañ bu leen wane leen fecc yeeg woy yi wante <laughs> côté liy yëngal dëgg dëgg dëkk bi euh, soxlañ na defe naa ku nekk rek soxla nga ñu foog ne ñun ñu jege Ousmane Sonko xam nañ li nar a xew ñu woo ay waay ay lan mooy xëy yokk dóor nañu gën a yokk. président di gëmm di dóor. voilà <laughs> ñu yegg ba foofu xëy na bu jàkkaarloo président dañuy jaxasoo voilà moom tamit mu mu toog a toog ba nga xam ne. li mu taxawoon ne mandat bi ñoo ko moom bu ko bu ko nanguwul dañuy dem déloger ko génne ko mu taxaw naa neexal leen ma ci résumé daal neexal leen ma waaw ci njëkk nag ñaan leen ma ko ci njëkk nag voilà bon mun naa wax ne ko loolu yëpp peut-être que dans le fond euh, xam na état muy demee ak liy yoon mais dafay wone détente bi nekkoon foofu par rapport ak ni sénégalais yi toogee ci nen ak lii di ñëw lan la nar a indi et le bi ñu génnee seen verdict boobu comme ni ma ko benn xale bu nekk ci ñun rappeur ne dañ jiiñ la maafe ni jiiñ na yaa nekk maafe bi xaw ma nu mu ko waxee sax tuumal la maafe juge la ci domoda juge la ci domoda voilà <laughs> donc affaire bi mu nekk beneen électrochoc boo xam ne mhm. euh, dama ne ñi ñi ñu jiite est-ce que ah, soxlawuñ ku leen yi ku leen di jàngal temps sénégalais ak ci en instant tey fi ñu toll tey jii lan la ñu yëg ak lan la ñu kii ak lan moo hmm. leen di yëngal hmm. soxla nañ ko daal dafa mel ne rek les décisions ay FMI Banque mondiale yi nga xam ne àndul ak anthropologie suñu dëkk ba nga xam ne bu ñu ñuy yegsee c'est des gens qui pensent vouloir du bien pour nous te buñ bu ñuy see ñun ñoo leen di gën a ŋàññi fekk def nañ ci seen xaalis seen hmm. temps seen seen xam-xam ak seen lépp voilà donc tension boobu nekk ci Sénégal depuis très très longtemps mi ngi fi ba léegi parce que li ko sabab li nekk ci suuf jugewu fii ba mm. léegi te gëm naa ne que euh, tant que yooyu jugewu fi euh, au moins au moins euh, dara mun fi am li ci des nag mooy non seulement loolu mi ngi fi mais yeneen yu bees yegg si ay ay façon li ñuy na di ko tuddee maintien de l'ordre force reste à la loi ak yu kenn xamoon ñu wane ne léegi ci policiers yi dafa am ñu leen rax xaw ma policier yu civil yu lañ xaw ma nervi lañ yoo xam ne dañuy yore ngànnaay di dal ci kaw nit yi te vraiment defe naa ne booy def maintien de l'ordre man war naa xam ne que kii di yegg si maintien de l'ordre moo ko tax a kii ba nga xam ne bu defee ma obtempéré maanaam ma déglu ko obéir mais bu fekkee ne dafa mel ne keneen wala solu comme bi bu ñëwee di ma jox ordre wala di ma def dara dama koy defante ak moom voilà parce que du ko nangu waaw wala su fekkee ne su ma ko porté plante police boobu moo ko fa déposé y' a a problème. mais mais yegg donc y' a un problème de communication. ah y' a dañoo déggantewul diggante politiciens yi laa mën a wax ah. état ak opposition ak peuple bi ci boppam déggantewuñu. Ah, non c' est à peu près un dialogue de sourd quoi. non c' de sourd. te tey jii euh, tamit euh, vraiment c' est tout parce que euh, ñi ay war a indi waxtaan bi man tamit souvent dama leen wax sax dëgg dama leen di ngañ parce que. Euh, bu dee mbirum jigéen ñi bu dee mbirum la yow bu fekkee ne lu faral ci état bi nga wax ci ndànk bu dee opposition bi nga def conférence de presse wax ci dal ci ba ci kaw mais sa crédibilité day wàññeeku. Mhm. kon ñoom tamit nañu seetaan parce que mënu ma mënuma gëm wax ci. wax ci suuf boo xam ne yenn société civile ah, ak réseau yi jàppale jigéen bu dee jigéen la ñu attaqué. Mhm. wala kuréel yi nga xam ne dañuy indi jàmm. yow bu fekkee ne nee nga yow yaa ngi wax fii di wax fii kii li nga koy wax dégg nañ ko ba mu ba ñëpp dégg nañ ko kee nee nga yaa ngi koy wax gisuñu résultat kon lan nga fa wax. wala est-ce que dégg nañ la dafa war a leer daal dafay leer donc bu ñu bëggee parce que dañu soxla acteurs yooyu bokkuñu fenn ñu xam ne ñii tëddewu tëddeewuñu njaaxaanaay et ñii li ñuy def leer na et lii ak lii la et que bu ñu gisul résultat ñu wante kan moo fan la affaire bi nekk wante ñun mënuñu nekkoon ci m joxe suñu kàddu tëral lépp ci suuf def suñu mémorandum yónnee ko gisuñu résultat ñu ne ci suuf la ñu waxtaan xamuñu lu ñu waxtaan léegi qu'est-ce qui s'est passé ba ñu def loolu donc tey jii bu ñu egsiwaatee 2023 mooy après vente de 2000 kii hmm. te man leer na ma ne suñu posewul ay actes yu leer ni xale yi miinee police ni xale yi miinee gendarmerie ni xale yi anticiper organisation satellite yi nekk ci maintien de l'ordre nga xam ne dafay brouiller kan moo ñëw pour maintien de l'ordre ak kan moo ñëw pour euh, yónni la parce que benn politicien jox na la ay ngànnaay jox na la ay moyens nga yegg si dina fi am beneen loo xam ne troisième vague la xam lu ñu koy wax ñun ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp duñ ci mucc parce boo nekkee ci mbedd mi di yegg si mm-hmm. bala ñoo xam ne kii madame Blondin la mais taal nañ sa oto mm-hmm. agressé nañ la wala leneen def na kenn du ci mucc donc nañu jël sociologie boobu ak anthropologie boobu di ko boole ci bu ñuy doxal Sénégal yëf bi du koom-koom rek ah yëf bi affaire u nit la te booy def yëfu nit da ngay da ngay jël dimension humaine de cette affaire